chers téléspectateurs Leral TV ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax eh, yéen ñii di ñu seetaan saa su ne ci Leral TV ak Leral eh, point net eh, ñu ñëw fii nga xamante ni moom mooy kaw Kaolack fii ñu taxaw nag moom mooy centre de santé bu bees bi nga xamante ni daanaka. daayira bu taalibe Baay yi taalibe yi euh, tabax nañ ko fii nga xamante ni moom mooy euh, Kaolack euh, centre de santé bi nga xam li nga xamante ni moom mooy doléance bi ak li nga xamante ni moom mooy bëgg-bëggu askan bi ñu soppi ko def ko centre de santé ndax poste de santé la woon mu nekkoon ci état boo xamante ni dafa xawoon a doy waar ñi nga xamante ni ñoom ñooy fidèles yi ak taalibe yi daal di boole seen doole ngir ériger ko def ko. li nga xamante ne moom mooy centre de santé ndax dañ ko tabaxaat euh, ci appui ministère de la santé euh, ñu daal di ko érigé def ko centre de santé ñu tuddee ko koo xamante ni moom mooy euh, Cheikh Ahmad Dam Niass muy doom ci ki nga xamante ni moom mooy Mambay Niass doon deuxième xalifam fii nga xamante ni moom mooy Kaolack alors boobu centre de santé moom la ñu ñëw ngir wone doole bi nga xamante ni taalibe yi boole nañ ko muy seen doole ngir tabax ko nee nañu xaaruñu dara ci nga xamante ni moom mooy état ñoom dinañ jëf bu leen fa état fekkee ah, xayrun bu leen fa état fekkul nag ah, xayrun tamit ñoom ah, teewul dinañ wëyal seen liggéey muy loo xamante ni daanaka néew na ñu koy gis mais bu fekkente ne am na rek ñu gis ni patriotisme ak volonté population ñu daal di tabax centre de santé bii de moo tax tey ñu ñëw ngir xam ñi nga xamante ni moom mooy construction centre de santé bi nan la demee ak ñoom ñi tamit ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko def nan lañ ci nan lañ ci taxawoo ak coût tout nga xamante ni moom lañ ko moom lañ ko tabaxee les contributions ndax lii daanaka action sociale la boo xamante ne taalibe yi seen jëmm bopp ñoom ñoo ko amal donc dañuy jëm a xool ñi nga xamante ni ñoom ñoo réaliser bile le bijou ñu waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ni moom mooy euh, réalisation structure bii la. tey ñu ngi am mbégte beneen yoon di wax ci li nga xamante ne mooy centre de santé bi ñu tuddee Papa Dame nekk kenn ci doomu Maolana Cheikh Ibrahim yi ñu ràññee ko ci liggéeyam ci faydu bi. donc bokk ci lii gën a tax ci sama yaakaar xalif bi jël tur bi jox ko ko donc ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yokk ay leeram te taf ñu ci barkeem di wax na nag euh, centre de santé bii comme ñu leen ko waxee woon poste de santé la woon ñu ngi fi ñëwoon daaw daanaka boobu ak léegi def na ay 11 mois bi ñu ñëwee visiter ko xool ko mu nekk ci état boo xamante ne daal pour ñun Médina mérito wut loolu donc si lañ jël en tant que daayira en tant que ay taalibe ñu jël engagement ne dinañ ko toj defaraat ko ci ginnaaw gi nag biñ ko tojee di ko liggéey daayira bi pratiquement ñoo ko liggéey entièrement am nañu ay daayiratu Dakhawal Ihsan donc am nañu ay quelques dons yoo xamante ne ay bonne volonté yu ci dugg mais à plus de quatre-vingt pour cent c'est sous c'est sous fonds propres donc membre daayira bi ñoo ko réaliser ñoo ko cotiser réaliser ko donc ñu def ko mu nekk aussi mbégte nekk loo xamante ne aussi gisuñu suñu bopp parce que dama koy fàttali keroog Maulana Cheikh Ibrahim moo ñu waxoon fa suuratu Ibrahima tabqa tazakura isa abalil Maula ali wa tafakkura donc ñun amuñ sikk ne moom mooy feeñ ci ay feeñuwaayam di di yeggale ay mbiram ndax wëllu yàlla eh, ay mbiram da koy da koy jël rek teg donc képp ku ci teg sa loxo rek ngëneel lay nekk ci yow mais du doon sac du doon dëgte donc ñu ngi ciy sant yàlla bu baax di wax ne comme ni ngeen ko gisee ni ñu leen ko waxee poste de santé la woon mais gannaaw gi bañ ko defaree ba pare ministre de la ministre de de la santé ñëw na fii euh, ñu koy ndokkeel di ko nuyu bu baax a baax mu visité ko am si mbégte trop donc loolu tax mu jëloon décision ak ci yoonu xalif bi euh, jàppandalu xalif bi érigé ko en centre de santé niveau 2 donc mu nekk loo xamante ne mbégte la ci mboolem population Médina ñu ciy sant yàlla bu baax di ci ndokkeel xalif bi beneen yoon di wax ne réalisation bi daara warut lu dut liggéeyal yàlla ci ay jaamam parce que yàlla moo bind ay jaamam te lépp loo ko defal ci ay jaamam moom moo la koy fayal boppam comme doomu aadama mooy kuutalam ci kaw suuf lépp loo def ci doomu aadama yi amul sikk ne yàlla nga ko defal donc loolu ñu ngi ci ñu ngi ci am mbégte en tout cas di ci sant yàlla di ndokkeel waa daayira bi yëpp tamit jiital ci ndokkeel bi suñu président baaba Guèye di ko ziyaara di ndokkeel aussi suñu chargé de la communication nga xam ne tey moo fi waroon taxaw Cheikh Abdourahmane Ndaw ñu ngi leen ndokkeel ñoom ñëpp jaara seen tur di ndokkeel waa daayira bi yëpp di wax ne coût bi ñu def ci centre de santé bi mu ngi toll ci exactement cent cinquante cinq millions neuf cent mille neuf cent soixante trois donc mooy coût bi nga xamante ne moom lañ ci def ma beneen yoon ne am nañu ay quelques dons bon bëgguñu di citer ay tur parce que ñu ci bari bëgguñu ñu wax seen tur waaye à plus de quatre-vingt pour cent c'est sous fonds propres bu daayira bi am na aussi benn conteneur boo xamante ne mu ngi si yoon bi di ñëw dañ ci def ay lii plus de vingt lii yoo xamante ne fii lañ ko jagleel donc ci biir centre bi boo fi duggee am na comme ñu koy gisee ci service sanitaire yu bari am na salle d'accouchement boo xam ne dañ ko insonorisé def de sorte que suñu yaay vraiment nekk ci sutura parce que xam nañu mat nu mu méttee à part loolu am na ay salle consultation am na ay salle de ci kaw prévoir oon nañ fa def fa ñaari logement yoo xam ne bu ci nekk deux chambres salle de bain la donc benn bi médecin chef bi moo ko waroon moom benn bi sage maîtresse sage-femme bi donc finalement il s'est trouvé que dañ fa war a def cabinet dentaire donc mu nekk beneen mbégte boo xam ne kontante la si ñun madame la ministre bi mu fi ñëwee kontaan na ba ne dafa indi accès oxygène donc mu nekk loo xam ne lu ñuy sant yàlla la pour ñi nga xamante ne peut-être dañuy am problème respiration comme asthmatique yeeg yooyu bu ñu amee yenn complication yàlla yéex te ñàkk bu ñu ñëwee balaa ñuy sonn bay dem hôpital di am gàllankoor ci yoon bi ñu mën leen assister fii ba stabiliser leen soog leen mën a yóbbu donc li ci li ci ëpp solo daal yaakaar naa ni ci loolu la ñuy loolu lañ ci waroon a wax en tout cas di sant aussi bépp taalibe Baay di leen gërëm te di leen wax ne mbir mi lii la il faut que nit ñi jóg def te bu gis leen ma tax bu politique tax bu dara tax parce que société ñi si nekk ñoom ñooy composé société bi donc ñoom ñoo ko war a tabax kenn warul xaar sa moroom ci dara képp koo xamante ne am nga lu la yàlla jegle lu ndaw ka muy xam-xam ka muy alal ka muy mën man ka muy doole wala kattan da nga ko war a jël def ko ci yoonu yàlla li toowee su suñu àdduna ba kenn mënuñu see nax buñ ci toowee lu ndaw ci yoonu yàlla rek dinañ ci am gëneel te amuñ sikk ne ku ci nekk am nga mbébét bi am nga yaakaar bi te di wax ne keroog xalifa bi mu ngi wax ak mbégte am na beneen mbokk taalibe boo xamante ne pare na pour tabaxal Médina benn hôpital boo xam ne coût bi 400 millions la ñu koy ñaanal yàlla yàlla yeggali projet am boobu yeggali ay mbëbëtam te defal ko ko si jàmm ci barke alxuraan mu nekk sagu waa Médina nekk sagu doomu aadama yëpp. keroog ministre bi mu fi ñëwee elle nous a promis directement devant le xalif aussi que ni dina jàpp ci équipement bi donc dina defal équipement bi comme ni ma la ko waxee sànq am nañu déjà ay lii yoo xamante ne mu ngi ci yoon bi di ñëw bu ñëwee dinañ ko installé. boo demee si lu mel ni sal d'accouchement bi ak yeneen deux autres salles yoo xamante ne ak salle de euh, nu ñu koy waxatee. Euh, salle d'accouchement bi la ak salle d'hospitalisation bi ak am na beneen salle déjà bon def nañ climatisation yëpp donc équipement yi bu lal yële commencé ñëwee ñu commencé déjà dugal di xaaraale déjà ministre bi euh, li nga xamante ne moom lay indi comme participation di wax na rek lii pour doomu aadama yi la pour waa Médina yi la donc lépp loo xamante ne waaye jàpp na ne war na ko cee mën a def na ko def bu mu ci xaar kenn ku ko ci woo bu ci xaar kenn ñu nit ñaanuñ yàlla yem fii lépp loo xamante ne mën nañ ko def bu soobee yàlla dana ci teg suñu tànk teg suñ loxo. wax dëgg yàlla li ma la wax rek amuñu doléance xaaruñu kenn euh, dégluwuñu kenn defuñu tamit pour kenn gis wala pour kenn constater lii ñuy def sax interview du lu ñu gënal mais dafa fekk ne euh, ku santul yàlla ku santul doomu aadama doo sant yàlla. donc peut-être dafa jaaree si suñu loxo comme li ma la wax duñ ci dara nag xëy dafa jaar si suñu loxo ñu def ko. ñu ci sant yàlla bu baax di wax ne amuñu dara lu ñuy xaar ci kenn amuñu kenn ku ñuy xaar pour mu féliciter wala remercier kontaan bi ñu gis mbégte bi ñu gis kanamu xalif bi rek doy nañu sëkk doy ñu sëkk ci ñaan tamuñ sikk ne yàlla dina barkeel li des yëpp allah allah. Euh, docteur Ibrahima Diop euh, président de la commission santé di COMOF le COMOF c'est le comité d'organisation des manifestations et activités de la Fayda dañuy sant ñu ko defar d'abord dans un premier temps euh, parce que ay taalibe lañ ci biir dëkk bi lañ dëkk. di wax ne centre de santé bi euh, lu ñuy yàgg jooy la fii Médina Baye parce que auparavant poste de santé moo fi nekkoon te poste de santé ku xam poste de santé xam ne euh, santé pyramide sanitaire la da ngay jógee koo si poste de santé dem si centre de santé dem si hôpital donc dafa def escalier comme école comme comme léegi éducation da ngay dem si euh, primaire secondaire lycée donc échelon boobu moom mooy la ñuy wax pyramide sanitaire ba tax na ñun bu ñu jógee ko si poste santé tey ñu xeex ba yóbbu ko ci niveau centre de santé dafay def revendication boo xam ne dafa nekkoon fii Médina parce que mérina dafa nekk dëkk boo xam ne dëkk international la woon mais problème yi infrastructure sanitaire daf si mos a problème ba Mawlana Cheikh Ibrahim soo gisee muy ñaax taalibe mi pour ñuy faju c'est pas pour rien mu jëyee koo Médina dem ba Londres di faju ji foofu te taal gis ngeen Sénégal ak Londres distance bi nu mu sori terewul mënoon na yem fu nekk dëkk naar yi gis nga bëri na fa ay taalibe mais dafa choisir dem ba Londres loolu nag beneen affaire la donc pour diir que taalibe yi ku si feebar da nga war a dem faj yi te bu muy dem foofu dafa àndoon ak benn sëtam bu ñuy wax imam Assane Cissé bi mu demee foofu bu imam ñëwee daf ne faju importance am capital am waruñ bàyyi suñ këri këri di suñ kilifa diine yi ñuy jéewe koo Sénégal dem di faju ji feneen mu njëkk a xalaat créé fii lu ñuy wax euh, clinique imam Assane Cissé clinique boobu moo fi nekkoon parce que clinique moom mooy abrité médecin poste de santé du abrité médecin infirmier la abri abrité donc moom mu nekkoon comme infrastructure sanitaire fii si au niveau de Médina Baye donc à part ça y avait que poste bi bon ñuy revendiquer def revendication def revendication ba gis ay taalibe yoo xam ne ñëw nañ gis centre bi ci poste de santé bi gis état bu mu nekk ñu ne non dañ koy transformer en dañ koy defaraat sax li ñu waxoon ñoom ñoom leur objectif c'était pas de faire le poste en centre mais bu ñu gisee construction bi ñu gis taraay bi ñu ñëw def visite en tant que technicien ñu yéeg si kaw xool ñu ne ah lii moom lu ñu doon xeex boobu ba léegi mën na ko doon si lañ bind lettre ministre bi ne ko nag ah ñun ne am nañ benn construction bu fi nekk boo xam ne poste de santé la woon mais bëgg nañ ñu transformer ko en poste en centre de santé ministre bu mu fi ñëwee aussi il a fait la visite bi mu ñëwee si lañ def décret bi génnee ko moon ko xalif bi ñu jël structure bi transformer ko en sante de santé léegi nag ñoom lu ñu waaj lu ñu lu ñu lu ñu amoon link ak xalif bi ñoom seen jaan wàcc na daayira bi parce que vraiment tabax la ñu waxoon tabax nañ macha allah ku gis léegi infrastructure bi nga xam ne infrastructure bu moderne la ñu jël caabi ji jébbal ko xalifa bi mais nag nit munul tabax mel nii ba pare te amul équipement donc équipement bi nag si état bi lañ koy xaaree parce que bu ministre bi ñëwee waxoon nañ ko mun ne ñu dina def équipement bi inauguré nañ ko nag c'est pas encore fonctionnel pour l'instant gàmmu gi moo tax ñu def fi benn poste médico avancé les médecins son la mais waa Baye assistante médicale ñoo fi nekk di def traitement di soj mais bu taalibe yi yaakaar ne poste bi dafa ubbi centre bi dafa ubbi centre bi ubbeegul parce que amul groupe équipement équipement boobu nag la lancé état bi surtout ministère de la santé gaa wax na ne dina ko équiper mais soxla nañ ko urgence lu mu gën a gaawee su munee am sa avant gàmmuwaat bi je pense que dinañu gënal nga xam ne avant gàmmuwaat bi dina mun a fonctionnel donc léegi nag intérêt bu mu am si biir fii daanaka wax naa si tuuti parce que su nekkoon poste lañ ko defaat tey infirmier moo fi nekk mais léegi comme centre de santé secondaire la on aura un médecin bu fi nekk dina am sage-femme dina am biologiste boo xam ne dafay nekk un technicien de boo xam ne day def ay analyse yëpp da nga koy def donc loolu xéwal la aussi dina am aussi un pharmacien boo xam ne mooy gérer tout ce qui est médicament à l'intérieur donc spécialiste yëpp dina ko am dina am aussi un benn sage-femme boo xam ne dina fi nekk fii ci poste bi on a demandé ces deux sages yoo xam ne pour ñu nekk fi parce que ku xam Médina Baye xam ne taux d' accouchement bi fii dafa xaw a élevé parce que ñu bëri dañuy préféré ñëw Médina pour accoucher si fii ci pays Maulana Cheikh Ibrahim donc loolu aussi ñu ngi si ñaax état bi mu jàppale ñu si ba nga xamee ni dina ñëw donc la gis nga intérêt bu mu bu mu am fii si biir Médina te soo xoolee structure bi réservé nañ benn salle si kaw boo xam ne fay VIP la boo dañ ko tuddee VIP sax parce que wàllu faju moom ñëpp si la ñem mais dafa am ay sëriñ ñoo xam ne ay kilifa comme ni la waxee si dëkk bi lañ dëkk nangootuñ ñuy paas di dem ba Maroc di faju si ay yoo xam ne nii ñun mun nañ ko mën a jël en charge parce que ku xam université Cheikh Anta Diop de Dakar mu abrité faculté de médecine et de pharmacie et odontostomatologie ndax xam ne éminent médecin foofu la ñu leen di fajee soo demee CAMES la plupart ñu jàll CAMES université Cheikh Anta Diop la ñuy jooyee ko soo demee marocains yi fii la ñuy jàngee égyptiens yi dañuy ñëw fii ci université bi les mauritaniens dañuy ñëw si université bi donc boobu tàggat na ay ressources humaines yoo xam ne ñun am nañ donc suñ ko amee tey fii am benn salle VIP si kaw suñ sëriñ si jaratuñ ñuy tukki di dem ay Maroc di faju ji donc jumtukaay bi rek suñ ko amee je pense que dinañ mun a toog fii dallu ñu faj leen li si war yëpp ñu def leen ñu kibal leen ko su ko defee du jar ay voyageurs yooyu te dayul day wàññi économie boo xam ne nii si dëkk bi la waroon jógee ko pour ñu paasal dëkk bi ñooñu dem gan yooyu ñu dem. suñu nee centre de santé secondaire ça veut dire que dafa am link ak district sanitaire bu Kasnack mën nañ dem ba mu doon district parce que mun na doon district parce que district bi. dina mun a coiffer poste de santé parce que fii am na ay poste de santé yu bëri yu gravité tout autour du centre mun naa citer poste de santé Sam jege na fi poste de santé Medina Baba jege na fi poste de santé Coofok jege na fi donc poste de santé yëpp mun nañ gravité tout autour di du centre su nekkee mun nañ dem ba def ko district mais loolu doyul si infrastructure sanitaire fii xalif bi keroog bu muy inauguré fii nee na am na taalibe bu ñëw indil ko 400 millions. ne suuf bi lay xaar pour tabax fi hôpital fii au niveau de Medina Baye te loolu si yokkee si centre de santé bi je pense que loolu aussi day gën gën day gën a avancé loolu nit ñi ñu boole ko ak clinique Sifa bi ah, imam Assane Cissé je pense que dootuñu amati problème yi infrastructure sanitaire